asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi leen nuyu ku si sa tur ak sa sant doon sànni ñaari mo rek ci ci ci ci jëf-jëf am guddi guddi mawlud bi voilà di wax rek ni sëñ Moustapha Sy bu ko gars yi déglu juste un cancer tête de colonne crâne vide de connaissance il faut oser le terme il faut dire le mot tel quel son pour wax ben affaire mooy rew ñett ko mën taal gars dina rew réew ñaar ko mën taal mais ñett mën nako taal ba ñeent rew affaire de religion mën nako taal rew affaire de ethnie mën nako taal rew ku war a wax waxoo war nga ko taal réew tamit koo xam ni ku yaakaar ni moo xam lépp te xamul ni xamul dara te teewul làmminam xamul fu muy waxee xamul nu muy waxee heure wax xamul heure wax kooku mën na taal réew donc mooy loolu ñu suñu enfance ñun soppee Cheikh Ahmed Tidiane ñun ñun taalibe Cheikh ñun nawloo wuñ la yow doo dem Tiwaawan yow kañ nga gëj Tiwaawan yow daa xam la moo nekk Tiwaawan yow xamoo la moo fa nekk ah ba pare ngay taxaw fii di wax di n'importe quoi affaire yooyu noonu donc sa de yi ngay def nga a ñu nawlo la la xamuñu yow la ñun xamuñu la xamuñu la la xam voilà su fekkee bëgg nga dégg tu es une vraie tête de clown crâne vide de connaissance rien dans ton cerveau sa cerveau bi dara ci faut oser le terme te xam si biir la am na waxtaan dafa am heure am ko am ku ko am Mais tu te permets d'être là, de dire n'importe quoi. Tu as un crâne plein de connaissances, tu as rien dans le cerveau. En tant que goudi, goudi maloud, goudi prophète, goudi, hein? Ah, Nous avons fait magal Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yow nga taxaw de faire des di Il sa a di di wax sa Mais tu réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. da ngeen war a bàyyi seen base yi ngeen di base bu ngeen fa toogee sama papa nee na sama bàyyi nee na ku nekk sa papa am na lu mu def ku am na lu mu ku nekk sa maam am na lu mu fi mu boo demee fi ma dëkk ba léegi ñu fay impôt gouverneur dafa ñëw sama maam dëkkoon ñuus ne sama maam am na bu ngeen ñu baasalee tey da leen ñu wax ci bi sallallahu alayhi wa ay sama nee na sama maam nee na karan karan jàppal bàyyi amul bàyyi. faut arrêter ces conneries yow biñ la biñ la xamee ba léegi dara taxul a jug lu dul xaajale yàq xaajale di jéem a départager kase kase moo la tax a jóg faut arrêter ces conneries te lu ëpp tuur nag te instant bi yi nga wax wax ji ak fi nga ko indi c'est c'est pas le moment au moment où ñëpp ñi ngi taxaw di xex islam au moment où ñëpp ñi ngi taxaw di xex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on n'a pas besoin de ça surtout au Sénégal yow ñuy taxaw di jëmmal di di di di di di di défendre l'islam yow boko ci. yow kenn xamul la tax a pouvoir mo la tax a jóg boo taxee naan Tivaouane na nga koy téewi sa loxo yow pouvoir mo la tax a mais défendre l'islam taxul a jóg. defar lislaam bi lu tax taxul a jóg l'islam lislaam taxul a pouvoir mo la tax a tu es obsédé par le pouvoir si tu te permets de dire des bêtises que démb la gis yalla sa papa avant mu fi jóge sa sa waajur bu góor avant mu fi jóge la taxaw lan la wax borom bi subhaanahu wa taala kenn mënu ko gis

Rien du tout. Et là, tu te permets avec ce grand gueule, n'importe quoi à faire. faut oser le mot, faut oser, oser dire les choses telles qu'elles sont. Maman, il faut arrêter ces conneries de l'optourou. Nous tu le diamant. Nous voyons que si Ahmed Tidiane le diamant. Nous sommes les te ñaari sëriñ dafa am sëriñ boo xam si mi ngi ci yoon wi autoroute à péage ak sëriñ boo xam dafa nekk ci yoon bu gàtt bi mais yoon bi ay dóoraan la ba fees boo fa jaaree da lay tardeel ba bis nga dem ci yàlla tardé décédé mu lakk la nga jëm safara yow ku la topp ñu la topp boo moytuwul foofu nga jëm ñoom arrête ces conneries faut oser dire les choses telles qu'elles 完了。